المالك الحق المبين شيخ ابراهيم كوريريا كوغيندي المريد هو سيرفيس دمام شيخ ابراهيم فال la la la la la la la la la la la jërë ngeen jëf mbokk yi kon niñ ko defee woon xam ngeen ni euh, tey la ñaareelu fan bi ci liggéey bu rëy bi ndigalu Cheikh Mouhamadul Mountakha moom Cheikh Mouhamadul Bachir euh, di euh, jëm nag si am di sëñ am di Fall moom sëriñ Modou Mbende Fall yàlla nañ fi bokk yàgg lool te ànd ak wér <coughs> sar nag si mboolem buntu kër maam Cheikh Ibrahima Fall yëpp ngir nag lii nga xamante ni moom mooy marché gaar bi ak rek xàll wii nga xamante ni sax mooy xàllu gaar wi ngir nag ñu daal di koy laabalaat maanaam lépp loo xamante ni day encombré rek ñu mën ko fee jëlee xam ngeen ni boobu ba léegi Baye Fall yee ngi si waaye Baye Moussa Seck la ñu taxawal nii ci ndigal lii nga xamante ni Cheikh mun Mountakha jox na ko Serigne Amdi Fall moom sëñ Modou Mbend te sëñ Mouhamadou Mountakha bii Baye ah. Moustapha mm-hmm. daal di yéene lu si jumaa yi mm-hmm. ni uh, moo ngi uh, sàkku si képp ku ko mën mm-hmm. na nga togg ay añ yóbbul ko mbokki Baye Fall yi ci liggéey bu réy bii mu leen sant kon sëñ mun uh, sëñ joxe na ndigal jox na ko waa kër maam mel na ni ndigal li duñ fi xamante ne moom la sàkku si waa kom ndigal ñu ñu matale ko Baye Moustapha waaw ndigal yi sëñ na dafa mel ni lu repp tew lu fi amal ba mu amaat ba yàgg mu amaat te amaana am na yu ko jiitu waaye yii moom amoon na ba yàgg mu amaat ba yàgg mu amaat te am am bu njëkk ba daa ni moo gën a diis war na moo war na gën a diis ci murid yi waaye ba mu amee borom Tuubaa joxe ndigal maam Cheikh Ibrahima Fall jox ndigal ji taalibe te boobu seeni bakkan la laaj ak seen deret teer bi dañoo joxe woon seeni bakkan ak seen njaboot ak seen deret ak seen alal mm-hmm. loolu lañu ñu boole woon joxe ko kon lii bu demee ba nga xamante ni laajul bakkan laajul deret xanaa li mu laaj moo njaboot gi ñëw ci liggéey bi ak nit ñi ci nur ni si dañ cee yàqule dara seeni alal yàqoo ci ñooñu ñëpp boole nañu bëgg dugal ko ci bëggug seen moomu du mun dugalaat ko ci bëggug sëriñ Amdi Fall mu Cheikh Modou Fall benn xalifa général Baye Fall ana bu njëkk ga mooy lan bu njëkk ga mooy bi borom Touba Xaadimu Rasuul joxe ndigal ci 1918 te guerre ba te guerre ba mhm. ñu recruter ay militaires militaires yi ñu recruter mooy ñetti téeméer ak fukk ak ñett sama maam Cheikh Ibrahima Fall ci mbindum sëriñ Momar Talla Fall ni Cheikh Fall jóge téeméer soldat ak juróom fukk ci biir këram loolee te ku ñëw dañ lay identifié laaj la sa tur sa turu ndey sa turu baay peese la ba xam sa poids ci biir ga yaram ba xam fu mu toll laaj la nag lan mooy sa métier loo doon liggéey ba ñu ñëwee ci Serigne Jibril Saarum ndey officier bi officier bi tubaab la officier bi ni ko Jibril Saar mu ne ko Faal mu ne ko yow lan moo doon sa métier. sëñ Jibi Sarr da ko ne xeex xeex mu ne ko waaw xam naa ni sëriñ Cheikh Fall da lay xeex looji ji loo jëkk na man ba boo demee man ko jariñ armée bi ngay mu ne ko man daal xeex laa man xeex xeex. ndax xeex la woote. ndax xeex la ñu woote. ginnaaw nag loolee deret lañ doon laaj ak bakkan te kooku bëggatu la man du joxe bakkanam ak joxe deretam. magi taali bi yooyu ñoo suñu bàyyi taali bi. te amoon na métier. te amoon na métier mm. mu wér. kon nag nuyu itam bi digal Cheikh Mamadou Mountakha ñëwee wàcc ci Amdi Fall mu Cheikh Modou Fall Mbenda mu digle lan mooy toj ak tonni noo ngi ci diggante toj ak tonni amuñu beneen man-man lu dul toj ak tonni moom la Baye man li ñuy toj ak di ko tonni nag mooy ab Baye Fall du tooñ ab Baye Fall du yàq waaye ab Baye Fall nag day defar di defaral sëriñ bi ci diggu sëriñ lépp lu ñu toj lu baaxul ci dëkk bi la. lu bon la ñu toj duñ toj lu baax. ndigal lii lu sëriñ bi jox nag muy leeral te borom Touba dëkk bii borom Touba du ko def ngir leeral te mooy dañu adduhuka an taj ala oo daara tuqaa wal ilmi wa diini wa daara irtiqaa loolee bi bi nga xamante ni lëndëmal amal na fi ba ay samba booy di fi lëndëmal ba lor fi ay bakkan toor fi ay deret def fi ay ñaawteef sëñ Mountakha Mbacké jox maam si Ibrahima Fall ne ko leeralal nuy leeral leeral googu nag ñu nga ci te duñ ko bàyyi te duñ ci jóg yàlla dogal naat nag nan sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a ndax sant yàlla gi ñi nga xamante ni dañoo dañoo fee tabaxan seeni kër ak ñi fi tabaxan seeni bitik ñu fi tabaxoon seen i bitik yàlla dafa dogal ñu am ngant ci lii ndigal li suñ tubaa joxe Cheikh Fall joxe ko kon fit na mën na cee yeewu waaye nag cant gi mooy ñoom ñoo ñii ñëpp dañoo jël suñu bëgg dugal ko ci bëggu xalifa généralu murit dugalal ko ci bëggu xalifa généralu Baye Fall ngir bëgg ci liggéey bii. waaw Moussa fu liggéey bi toll foo waar yi toll moom tàmbalee nañu ca fa kab yooyu suuf yaay gaare cambet mu jugi juma ja badog raay bi ñooñu nanu nag ba nanu gaar bi ñoo noonu tam ba romb nanu mbandum chemin de fer bii ñoo noonu tam ba nag yëtu ci euh, bassin de rotation bu mag bi nga xamante ni ci la ndoxum juma ji dugg fi mu ne foofu lan toll dañ koy jéggi waaw loolu nag ñu ngi ci diggu ndigal mooy noonu ab Baay Faal da ndigal day yemoon moom ndigal caabi la bu ëppee du ubbi ba manqué ubbi hmm. léegi dañ ñëw noonu ba yëgsi ci léegi toj na loo xamante ni nii tonni bi mën naa dem fii ak i fan kon noo nga ci tonni bi bu nu ko tonnee ba mu set digluwa diglu kilifa gi fu mun jàllaloo ci lu war a deñ nu jàll fa ñoom duñu santaane lu warul kon ñu nga ci loolee ba loola amee tam lii aman na fi sëñ Modou Moustapha Mbacké bi mu demee sëñ Fallou toog bu ma ko jaawaliwul dama dama cee bañ a waaye du ko sori cinquante sept sëñ fal woo sëñ si Amadou Mbacke Gaynde Fatma di ko di ko di ko di leeral lu dëkk bi ndax booba tam dëkk bi dëkk nañu ko te lu ci si wuñu ko mooy nii rek moom ñun ñu xotti mbedd yi sëñ ci fal baay góor fàkk dëkk lañu defal sëñ ci fal baay góor sunu jàmbar ji moo jiitu sëñ si Amadou Mbacke Gaynde Fatma moom it bu njaay bind na mu def ba mu xëyee la kaalawu kaalam gu mag ga yal nañu ko yàlla fayal loolu xam naa ci lu wér ba mu kaala woo kaala gu mag mu def ngor def diine def tawféex def ak njàmbaar loolu kase maa boo ko wax boobu wajur waa ngi fi wajur suñ si Amadou Mbacke Gaynde Fall yaay Fall ba mu xoolee fa fa yoon war a jaar fekk Daaru Xudoos ni mu bindoo néeg néeg néeg néeg soxna Fatma ba fala ne moom la jëkkarandal maa la ko wax waaw kese maa ba ma ko wax ba mu ko randalee soxna sax wax na waaye ñaxtuwul waaye nangu na ndigal la da ko naa ah, fi ma sa bàyyi bàyyi woon de mën ngaa fee bàyyi waaye mun ko ndigal la mu daal nangu ñu ànd ca ndigal la tàmbalee ku daru ku doos def la mu war a def ba mu ñëwee ba ci Serigne Fallou Serigne Fallou daa jël ab siisam génn ni ni ni waaw ba ay tànkam waay ba bala moo jaar ci moom kër Serigne Fallou gii nga gis nii kër Serigne Fallou gii mu dëkke ci jumaa ji ak fu Serigne Modou Xabaan Mbàkke ñoom ne ak Serigne aboo lépp génn kër la woon mbedd jaaru foon lotissement bu ñëw xar kër Serigne Fallou ci digg ba ci ndiggul Serigne Fallou mu ne ko acca rek Serigne Cheikh Serigne Cheikh Baye góor jiitu loola dellu siwaat loola diit siwaat loolu nag dinaa ci wax loo xam ni ñii bañu ñu wax ju xorom ndax léegi la sëñ Assane wax ni sëñ sëñ sëñ sëñ Cheikh Fall sëñ Cheikh bi bi bi ndigal ci sëñ Mountakha ñoo ci sëñ Bass ñoo ci moom da cee da cee nit lu xorom ni boobu sëñ Modou Fatou Khare ngi fi bi ñu nekk ci liggéey bi nee sëñ Modou Fatou Khare da ne waaye yéen dënd Cheikh yi dégg ngeen lu ñuy wax waay ñu ne ñun ñu lu may wax mu ne toj ca gan ba toj ca kër toj gan ba toj ca kër toj ca gan ba toj ca ma ne loolu nag toj ca kër gi ñoom ñii ñëpp nangu nañu ko nangu ñu la ca des ndeysaan kon loolu lii bu ñëwee dal ci nun ak yombal am ci ñëpp bége ko alhamdulilahi rabbil alamin la la leneen la ca topp mooy toj gii nun defar na defar na defar nañu nu ko Serigne Touba lu mu jiite lu muy def da ciy jiite Cheikh Fall ba xam ni ak nangu fii la mën a yem bay xam ni fii la ak nangu mën a yem kon lu mu santati ab dongo soo ko attinul xama ne yaa ko attin si taalibe borom Touba def woo maam Ibrahima Fall ci njaarim jox ko kër ci kër gee ca euh, ca kër gu mag tabax loo ko bâtiment waxu moom néeg bâtiment saam Fall tabax bâtiment bi ba bâtiment ba yegg mu peinture ko ba tëj ko jël caabi jébba suñ tubaab ji ci suba suñ tubaab toj lu bâtiment bi mos ngaa dégg loolu rabat rajax suñ tubaab toj lu bâtiment ba bam ba mu jóore nii ñu dem di seera faal ñu ko faal bâtiment ba la suñ tubaab doon tabax loo day ba ko tabaxee ba peinture ko jébal ko caabi yi suñ tubaab toj la na ko mu ne ah doom su tabax loo woon baneen ma defaat baneen loolu suñ moo taala faal génne na ko ca woy wa loola bo loola amé ndeke bobu ku bax ki jot na ndigal ndigal sa borom ci jàkk ji ci njaarim jàkk jumaa ji ci kër gu mag ba loola amé jot na ndigal ba ba am autorisation def fa jumaa ji ci gouvernement de France le 11 mai 11 mars 11 mars 1918 di yor yor altine borom Touba ci la teg xeeru juma yu njaarim jee bisu bisu altine ci la teg xeeru juma yu njaarim ba nga xamante ni gas nañu pax mi ba mu xóot ci biir mu doon ak kam moom la xubba ba mooy paxum xubba bi moom xubba ba tiim kenn yow saa jàpp mu doon am pax mu war a mat deux mètres cinquante wala trois mètres ci biir ku ñuy wax ah déedéet ba ba taxaw taxawal jarbaatu si Issa Dieng. sëñ Modou ma ñëw Baye euh, Baye Nangam sant wa waay benn la sonn Bintu Dieng ni ma jarbaatu saa ba Issa wal mu am ministère la moo daaj échelle ba ba mu daajee séer dénk ba yoor ko ci pax mi borom Touba daal di jaar ca seel ba wàcc biir pax mi. Cheikh Issa Diène jaar ci sel bi wàcc ci pax mi sëñ Moutar Binta Lo jaar ci sel bi wàcc ci pax mi moo yoroon ndabul simaal si Touba doon teg xeeru jumaa yu njëriñ daal di wax ni sëñ Touba daal ba ni bisimilah tibb teg tibba teg tibba teg jël aw xeer teg jëlaatu xeer teg jëlaatu xeer teg ba mu tegalee ñetti xeer yi ba mu yegg li jël kaamil ba alquran bi ma yor ni ma yor sama nuur daari ni bii li jël kaamil ba ne ko teg ci kon ñetti xeer yooyee دال دالني وإسيرفه إبراهيم الخوائد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت سم العليم نديس بنجيم كتشو مجيل فنار راك سلمل ني إيسا منك مبكي منك بسم الله لجي بانو لجي بوا بي بانيو دمي بطول تلين وقت بطول دفرم بطول دفرم liggéey la mu joxoon maam si Ibrahima Fall te tojoon ko te tojoon ko nga xam te ne alal di maam si Fall nga ca ñàkku teel bi yaa nga fi moom la ñuy defee béton de forme du may njëriñ moom la ciy jiite nga xam si tubaab kon nag loola ko kon wane exemple ñu ne Thiéra Fall di maa ku liggéeyloo ci sama ndigal ba ñëpp xam liggéey nag sama ndigal ma defe ko nu mucc ayib ba ma woo ko gërëm ko mu am ngërëm ma toj ko ba mu ne rajax mu neexa kon na ko neexal ba mu koy digale kon yoon waa ngoom kon loolee nag moo moo moo noo lépp. Touba gii daal lu fi suñ Touba bëgg moo fi am. foofu sax laa bëggoon Baye Moussa ñëw. waaw ndax euh, bu ñu déggee si euh, kaddu Serigne Bassirou Mbacke mu Serigne Abdou Khadre si ndigalu Cheikh Mouhamadou Mountakha. Mhm. daa mel ni war may Touba. Mhm. nee na su sañoon. Mhm. ndigal lii ñëw mhm. mooy saa su ne Baye mhm. Fall yi nañuy mhm. nañuy nañu nañuy sàmm sàmmale sëriñ bi en tout cas war mooy Touba si foofu foo xamante ni maanaam gis nañ ko dul loolu maanaam ñu tàmbalee ko set ndax tudd nañ sax ay barab yu baree bare war mooy Touba ndax suñu xoolee si saayir lii sabab lii tàmbali si saayir si saayir mooy ay gone yoo xamante ne ñu ngi def naka su dul noonu si barab yii ba tax si saayir ñu xam ni sëriñ bi moo déclenché mooy mhm. élément déclencheur mhm. waaye mel na ni fas yéenewul yem fii kon ci war mooy Touba yooyu ku ko jox Baye Fall moom mel na ni delloo nañ mba mbatt ca loolu démb waxaat na ko moom suñ basi si moom basi si Abdou Khadir mhm. yàlla na fi yàgg téer ci gàttal ci li ma bëgg a wax du ko baax demee te maam Thierno woo kàngam yi woo ay rakkam kenn ku ne wax la fa nga war a féete sëñ Mandumbe sëñ Gaawaan mbokk yi mu wax leen fi war ba ñëw ci maam si Ibrahima Fall da ko ne waneelu yoon ndax yaa wane wane yoon ba mu lëndëmee te nag wanewu yoon a ngi doo ko jot ndax ka gisul woon nga won ko yoon ba mu gis ba demee ba gisatul na ki gis ba gisatul moo moo gën a mata wanu yoon sëñ basum ci abdoucar wax na ko démb damaa jutul ca kàddu ga waaye kon ma wax ko laneen ndénkaan la ndénkaan loolu maam maam Thierno Birahim wax Cheikh Fall fekk na Cheikh Fall dénk ko ko moom la yeesal dama la ni man man kenn dox saa digg ak Cheikh Fall dama koy gàttal te njëriñ muy Baye Moussa Diouf moo ma ne Moustapha man ko Fall mu ni ma lii ma lay bëgg a wax keroog bi ma ko Cheikh Fall di wax daal di Cheikh Fall sol maa ko ko jox ni jàkk jii dox diggante kër Serigne Assane Fall ak kër si Ablaye Fall Ndar fi la tàggatoo ak Serigne Touba ne bi bi Serigne Touba ñëwee dama ko ne wàngalu mu doxum noor si Touba du ngut sama kër ndax daawul dem kat kenn mun ma damaa bëgg a dem Touba la tàggu si jóge njaarim dem Touba sol sol sol xaftaanam ba kaalawu kaalaam ga sol dàllam yamuy sol ci jëmm du gént ñoo fekk si Cheikh Fall Baye Moussa Diouf nee na ma Cheikh Fall nee na ko man ko xanaa da nga yóbbaale ba ma ñetti yoon mun ma faa lay bàyyi mais ba ma ñettelee sama kàddu la la man Ibra Faal man ko Mbàkke mu mu ni Muhammadu Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nee nu ni teg mu bi mu ñëwee jamono daa ànd ak Seydina Ababacar Sadiq mu taxawal ko aw yoonam balu ma ta taxawal aw yoonam mu taxawal ko ba mu dem mu bàyyi ko mu taxawal ko ginnaaw ba lu ma taxawal ginnaaw mu taxawal kon Ibra Fall yow bi ma ñëwee loolu loolu loolu maam Thierno wax yow bi ma ñëwee da nga maa taxawalal sama yoon ba lu ma taxawal sama yoon nga taxawal ko kon nag bu may dem dama la fi bàyyi nga taxawal ma sama ginnaaw ba lu ma taxawal sama ginnaaw nga taxawal mooy lii mooy taxawal taxawal ginnaaw mooy war may Touba war may Touba ji ni bu ëllëgee bu defee émission dina ci dugg saamaam si Ibrahima Fall moo jëkk jël daanu kat góor yi ak daanu kat jigéen ñi tàmbalee raxas fu ab murit nekk ni leen murit gi lii ci la bokk lii bokku ci ndax gis naa murit gu yees boo xamante ni bokkul ak na ko borom Touba rëndewal ak maam si Ibrahima Fall ah, fun mu lay fu waay fu ne waay jëm fa te Seera Fall loolee woote woon na njaaram raxas ko ba mu seet wicc ni lii mooy murit gi léegi mooy am murit daal day gore am murit day yaru am murit day am teggin am murit day maandu am murit loolu war a rawatina ab Baye Fall amul di si gisee léegi nag maa ngi joxoon photo maam si Ibrahima Fall bu mag bii ña nekk mat nañu ñaar fukki xóoleen gaa yi nañu mel ay nit ñu yiw lañu loo loolu nit na ba fi ab photo am nekkee ay ay waxam ne fi ay doomam ne fi nekkee gisatam loolaa wér loolu loolu bokk na ci lu ma doon kii ci li ngeen di laaj. dëgg loolu tëj tëju na. léegi nag. ma am lu may laaj. waaw ñi ñi lay seetaan. waaw ayo loo leen di laaj. c'est un point d'interrogation. waaw bismillah. tombub laaj la tombub laaj. point d'interrogation damay laaj dégg nga ñooñu du dégg nga sàmm bi. waaw yéen dégg sàmm bu loxo ci kër si nekk sàmm bi. sàmm waaw. damay laaj sëñ Cheikh Fall Baye góor aw nag la rey. ولا قليم لري ولا أوني لري ولا نعاك بورب جد لري ولا دام باليون بل مم لم أم دال نوال جم أم بام كسامة كسام فال كثير فال جيب كل تك نجاب سام يوبو تسام بعه يوبو نكالني عن دكارير لجندي كتسام بي من تجيه في النية وتنا لا خو باي فال أم مو أب تيرلا ولا نجنت ولا أب ولا مي أيجان bu ñu nee bu ñu nee jànk di xis day jàng nañu ba noppi ba dégg nga waxtaan kat yi waxtaan nañu dañ ne acca nañu yëkkati saam acca ci saam bi acca leen ci saam bi waaw saamum sëñ Cheikh Fall bay mu def ay saami saami saami saami saam kër Cheikh la Fall yëpp ku ne am cab saam da ci añ di ca reer te saam yi mën ta jeex point d'interrogation boobu wan rab la sëñ Cheikh Fall bay buur rey loolu laay laaj sëñ Mamadou daa dakk laa diir Cheikh Ibra ba jam ko rek <laughs> ba jam ko mu nga mu nga kon yàlla na ko yàlla fayal mu ngi ni saam baa ngi loola mooy sëñ Cheikh Sikul laay nee na nangu ndigal saam boobu mooy turu yàlla bii yëkkati gi mu ko téye nag gar ci bakkanam ak ñama ci doon tàggat te ko baax ki wax ni sikurul illahi lil xuloo xootoo isin tafaa fa annaha tamuutoo turu yàlla daal ci la xol di dund xol bu turu yàlla fàddu xol ba day faatu suñ ci xol bay góor bëgg na xol yi ñëpp dund ci baatu laa ilaaha illallaah moo tax sàmm bi dañ ñëpp. rida rahmatullahi jërëjëf. Baye Moustapha kàddu yi am na solo euh, lépp leer na ñu ngi ñaan sama borom doon la taxaw ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall santaan nañ a a xam naa du ñàkk dinañ dugg xoolaat biir mbooloo mi ndax am na kàddu yu ñu war a taataanaat ci liggéey bu sell bi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha mi ngi koy liggéey loo njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall euh, Babi nga xam ne mooy li wër gaar bi yëpp ba set te lépp rek loo xam ne dafiy gàllankoor ay nit wala muy dëppoowut ak li yellu dëkk bi lépp mu jóge fi te Baye Fall yi boobaak léegi ñu ngi ci kon ñoo ngi ñaan yàlla ndigal lii nga xam ne njort nañ di jëfandikoo nañ ko na ko sëriñ bi sante yaan dañuy tajjeg taw feexi sëriñ Tuubaa maam Cheikh Ibrahima Fall jërëjëf riddan wa rahmatu minallahi ba di xeeri mi dunya ma fi ajami amin مالك الحق المبين شيخ ابراهيم يا كوجندي فيسبول مريد والسيرفيس دمام الشيخ إبراهيم فال